de dire que est-ce que cette expression là nekkul benn expression boo xam ne les juristes ont tendance à utiliser cette expression à tout bout de champ mm-hmm. mais dans la réalité est-ce que expression la boo xamante ne ni peuple bi le, peuple en question mm-hmm. gis na ci boppam xam nga boo déggee ñu ne le nul n'est censé ignorer la loi et c'est là où la démarche innovante dont parlait tout à l'heure Doyen et Adama est importante parce que boo xoolee auparavant on avait l'habitude de faire des yoo xamante ne ni le peuple est mis en sourdine quand je dis que le peuple est mis en sourdine mooy à chaque fois qu'il s'agissait de discuter sur des questions concernant la justice dañ ko defoon benn affaire d'initié dañ ko defoon benn débat d'initié mm-hmm. boo xam ne seuls les techniciens en la matière avaient voix au chapitre. ñoom kay tàmm nañ ko sax boo waxee sax ñu naan la loo xamul loo xam maîtriser wul. voilà même certains juristes en abusaient pour dire que voilà c'est des questions techniques donc le peuple ou bien la population les profanes n'ont pas leur mot à dire donc à partir du moment où nouveau régime bi ñëw na donc la première préoccupation bi nga xamante ne tey ji bokk na seen agenda mooy ñu revoirat la justice donc nekk na déjà un pas boo xamante ne nii euh, véritablement ñoom teg nañ ko mais démarche bi comme ni Euh, samay prédécesseurs waxee dans leur prise de parole xam nga Birama comme ni ma la ko waxee tout à l'heure dafa am ñaari expression d'abord vous avez dit tout à l'heure que nul n'est censé ignorer la loi xam nga nul n'est censé ignorer laal waa moom mooy lan mooy à partir du moment où la loi entre en vigueur pour qu'une loi entre en vigueur dafa am benn procédure boo xamante ne moom la war a jaar la loi elle est votée par qui par l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale par excellence ñoom ñoo tuddee les représentants du du peuple day delluwaat ci peuple uh-huh. après avoir voté la loi dañ ne la la loi doit être promulguée par le chef de l'État uh-huh. parce que le simple fait que la loi est votée ne vaut pas loi il faut que la loi soit promulguée par le chef de l'État qui est élu par le peuple par le peuple et la promulgation en droit c'est l'acte par lequel Okay. Et on dit que même si le président de la République promulgue la loi, jusqu'à présent la loi n'entre pas dans l'ordonnancement juridique. Il faut obligatoirement une publication dans le journal officiel. Maintenant, pourquoi publie-t-on la loi dans le journal officiel? Mais c'est pour faire porter la connaissance de la loi à la mhm. population bi la ça veut dire quoi léegi à partir du moment où la loi est publiée dans le journal officiel c'est pourquoi je dis que c'est là où l'expression aura tout son pesant d'or parce que bu boobaa dañ naan ah à partir du moment où loi wu bees am na kat yéen population bi vous êtes informé que loi bi am na hmm. donc vous êtes dans l'obligation de respecter scrupuleusement la loi qui vient d'entrer en vigueur dans l'ordonnancement juridique interne hmm. pourquoi parce que publié nañ ko dans le journal officiel c'est le secrétaire général du gouvernement qui procédera ki nga xamante ne tey jii nii moom mooy moom mooy moom mooy askan wi. la population. amatul droit à l'erreur dafa war a respecter scrupuleusement l'ensemble des obligations nées de cette loi bi nga xam ne moom est entrée en vigueur. c'est pourquoi lorsqu'ils ont décidé le nouveau régime en tout cas donc de soumettre au peuple cette plateforme. bi nga xamante ne tey jii dina leen mën a permettre ñu recueillir leur leur leur leur opinion en ce qui concerne des nekk une une démarche innovante. parce que mooy li ma la wax dans mes propos liminaires auparavant à chaque fois qu'il s'agissait de discuter sur des questions de la justice dañ ko defoon benn débat d'initié boo waxee non ça c'est l'affaire des juristes c'est l'affaire des professeurs c'est l'affaire des magistrats parce que le droit a, a un certain langage parce que le droit a une certaine technicité un caractère un peu hermétique mais bon quoi qu'on qu'on qu'on puisse dire la population doit être impliquée la population doit être au cœur du un tel état de fait de telle sorte que bien avant le dialogue sur la justice ñu jox la la possibilité à la population ñu joxe seen opinion wax li nga xam ne tey jii ñoom moom la ñuy xalaat par rapport au fonctionnement de la justice donc nekk na benn démarche boo xamante ne bu innovante la maintenant nag une fois maintenant que. def na benn ramassé. Mhm. par rapport donc à toutes ces propositions faites par la population e comme l'a dit si bien grand Adama Fall bu ñu nag ci li nga xam ne moom mooy assises yi les techniciens à la matière auront la possibilité ñu saytu en tout cas quelles sont les propositions les plus substantielles parce que mënuñoo prendre en considération toutes les propositions bien qui ont été au risque de euh, que ça devient cosmétique mm-hmm. maintenant bu fekkente ne identifier nañ en tout cas les problèmes majeurs les problèmes fondamentaux et les problèmes fondamentaux xam nañ ko. Mm-hmm. Mm-hmm. les citoyens ont décrié en tout cas le fonctionnement de la justice. Mm-hmm. donc la question de l'indépendance de la justice. les pouvoirs exorbitants en tout cas du procureur de la République parce que. les gens ne comprennent pas qu'à chaque fois qu'il s'agit de discuter sur des questions de la justice nit ñi fi ñu koy appréhender moom mooy la justice pénale mooy jàpp nañ benn politicien mm-hmm, mm-hmm. justice dañ ko dañ ko da da la population a une conception restrictive sur la justice ñoom pénal rek jàpp nañ diw bàyyi nañ diw donc la justice elle ne fonctionne pas mm-hmm. alors qu'en réalité au-delà de, la justice pénale mais les juridictions fonctionnent demee tey tribunal le tribunal du travail mi ngi fonctionner régulièrement boo demee cour d'appel mi ngi fonctionner régulièrement cour suprême mi ngi fonctionner boo demee tribunal du commerce mi ngi fonctionner mm. mais la conception que la population a de la justice c'est une conception restrictive une conception biaisée parce que pour ñoom justice daal mooy jàpp nañ benn politicien bàyyi nañ benn policier alors que loolu c'est juste benn benn benn benn benn benn benn aspect nga xam ne moom mooy justice mm. donc à que dina am ay propositions yu bari yoo xamante ne dinañ ko def donc au cours du débat on aura la possibilité maintenant de voir quels sont maintenant les problèmes yi nga xamante ne ni population bi yàgg nañ ko jànkonteel en ce que normal donc dëkk bi mën a fonctionner parce que justice dafa nekk lenn loo xamante ni lu am importance boo xoolee Jean Rousseau dans le contrat social. Mmh. da expliquer même que justice moom mooy li nga xamante ne moom mooy. poumon wu lépp li nga xam ne moom mooy démocratie parce que démocratie normale pour mu fonctionner wu il faut obligatoirement une bonne justice parce que dan lay wax ñu ne tey jii la démocratie elle repose sur les piliers fondamentaux repose sur la séparation des pouvoirs mais elle repose sur l'état de droit et pour qu'il y état de droit il faut obligatoirement la soumission de l'administration la soumission de l'état au droit te loolu nag soumission boobu noonu lan moo ko mën a ñoŋal mooy tey jii ni que justice boo xamante ni day tëddee njaaxaanaay xàmmeewul Adama Fall. xàmmeewul ku nekk Pastef. xàmmeewul tey jii donc à chaque fois que tey jii une question est soumise à la justice mu rendre une décision en tout cas de manière impartiale de manière neutre sans aucune en tout cas subjective subjectivité et Rousseau il disait que le premier et le plus grand intérêt public est est toujours la justice. le premier et le plus grand intérêt public toujours la justice. Et quand Jean-Jacques Rousseau dit que le premier et le plus grand intérêt public est toujours la justice, ça veut dire que les questions judiciaires, c'est des questions qu'il ne faut pas escamoter. C'est des questions qu'il faut prendre au sérieux et chercher d'apporter des solutions idoines pour que tey jii nii que dëkk bi mën a fonctionner régulièrement. looloo tax kon euh, lii mandargaal justice si ñu takk bëri. le, le principe de l'impartialité voilà, la glaive tenue entre les mains voilà. c'est véritablement son impérium bi nga xam ne imposer mhm. avec froideur avec objectivité mhm. mais aussi il y a aussi la balance qui symbolise l'équilibre qui allégorise en tout cas la justice voilà la glaive et la dame avec le les yeux bandés donc les yeux bandés ça ça symbolise l'impartialité du juge du xamee ki yor ak ku justice voilà parce que parce que euh, euh, y avait c'est Montesquieu qui disait que le juge n'est que la bouche de la loi. Ouais. du moom lañ laaj avec. non non non non non. il n'est que la bouche de la loi. que disent les textes c'est ce que disent les textes il applique ce que disent les textes donc c'est pourquoi Montesquieu il disait que le juge il n'est que la bouche de la loi.